li des ci liggéey bi xaw naa takku tuuti kon ñuy sàkkuwaat ci képp ku jëlaat kàddu rek boñ ci mënee saraxaat eh, aslef dana lu gënal kon su ko defee ñu eh, wax ni waaw kay ñu jàll directement ci kàddu Serigne Sidi Ahmed si su ko defee ñu soog a jàll li ci des sang bismillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والقائل أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين جعلنا الله من المؤمنين والصلاة والسلام على من قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه الذين آووه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ubbi ko turu yàlla subhaanahu wa taala di sant yàlla di ko bàkk di ko kañ ci fursa occasion bi mu ñu mayati tey ci mbaaxam ak yërmandeem dara waru ko ci lu dul lii coobareem la mbaaxu yàlla la di ko sant bu baax di ko ñaan mu boole ñu nangul suñu ay cant li ñu war a sant yàlla bari na lool waaye gi ci war a jiitu mooy xéewal bi ñu yàlla boole defal ci mbaaxam ne bu ko doon jaay di ci laaj prix kenn amul njëgam te mooy nicmatul imaani billah yàlla moo koy wërsëgale jaamam gannaaw bi mu ko bindee ba pare mu bokk ci xewalu suñu boroom yi ñu rafet njort suñu digganteeg suñu borom subhaanahu wa di am yaakaar ci suñu digganteeg moom ne ñi fi teew ñépp mën nañu wax te wax ji ñu sante ko yàlla ne ñu ñëpp yàlla boole nañu min ahlil imaani insha allahu taala ci jataay bu tedd bi nga xam ni jataay dootu ko gën a tedd jataay bu màgg bi jataay dootu ko gën a màgg ndax amuñu lu ëpp alquranul karim te mënuñu ko am te duñ ko am muy waxu yàlla subhaanahu wa taala mu wàcce ko ci jaamam di yonentam di soppeem di sangu lépp lu yàlla bind muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàddu gi mënoon na bañ a jib ndax damay faral di wax ni toujours benn yéene bu sellee rekk ku mu doon ci ñun te la yàlla yenke walla yéene boobu yóbbaale nga képp koo xamante ni yaa ngi ci ëttu ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah sallallahu alayhi sallam njëkk ñuy ñëw kàddu yi fi jib ak kàddu gi nga xamante ni suñu mbokk suñu soppe yëkkati ne ko léegi te jiite délégation bi di cheikh Hamzatu Mbàkke bu suñu baay cheikh Abdul Ahad bu suñu maam cheikhul Xadim radiallahu anhum ajmain yóbbaale woon na ñëpp ñu ne déet kàddu gi maam Thierno daaneel léegi xanaa dañu mënul gàntu rekk moo tax te itam ñi moom kàddu gi waroon ko yëkkati ñu ngi nii toog di sëriñ ahmada si bu sidi jamil bu sëriñ babacar si bu cheikhul xaaji malik sëriñ mouhamadul habib si bu cheikh mouhamadul mansour boroom daara yi bu sëriñ babacar bu cheikh alxaaji malik wala sëriñ babacar siise bu soxna ummul xayri bu sëriñ babacar bu Cheikh Al Hadj ñu nuyu ñi fi teew ñépp nag ziyaara leen duma lim li am solo ñun ñépp yàlla nañu yàlla gisal boppam gis-gisu yërmande gis-gisu texe ba faw gën ñu saxal ci siraatal mustaqim te gunge ñu ci bañ ñoo bàyyeeg suñuy nosi bopp ndax li taxawu doomu aadama dafa bari ñett yi benn jiituwu leen ci yàlla wax nañu wax wax na kook ñun ci alquran alcheytaanu llain an nafsul amaara ak hawa nafs inna alcheytaana lakum aduwun mubin fattaxiduhu aduwa inna alnafsa la amaaratun bissuu wala tattabici alhawa fa yudillaka an sabilillah ñett yooyu yàlla nañ ci yàlla boole musal di nuyu kilifa yépp di leen ziyaara di nuyu kilifa jataay bi fa tabaarakallaahu di sant yàlla bu baax di gërëm di bég ci bés bi suñu wayjur suñu sëriñ suñu kilifa gi giñ ko jagleel muy cheikh saalixu mbakke radiyallahu anhu ku nekk ci ñun xam na taxawaayam ci ëttu diine ak fonk gu mu fonkoon alquran bàyyi njaboot gi xel li mu samp ci ay daara kenn mënu ko lim lépp lu ca war yàlla di ko ca dimbali boromam mu di ko ca def fa tabarakallahu kon ameel nañ ko njukkal yàlla nañu yàlla wuutu fayal ñu ko bi jaahi saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ci des mooy nu gërëm bu baax sant bu baax alxaaji abdallahi ja ak cheikham mbokkam alxaaji muhammadul moustapha ndiaye ñoom muhammadul moustapha dia ak mbooleem ñi nga xamante ni tey ñu ngi taxaw takk seen ndigg di ko jàppale ci liggéey bu demee nii mbokk yi lii mooy mbir mi hakaza hakaza wa illa fala yal na alquran nekk suñu ndimbal yal na alquran nekk suñu wéttal yal na alquran nekk suñu soppe yal na alquran nekk suñu lépp ak suñu fépp jataay bi yàlla bu mu nekk suñu mujj jataay yal nañ ko muurloo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jotal leen nuyoo ziyaara alxalifa sëriñ babacar si mouhamadinil mansour ci ndigalam ak i rakkam cheikh alhaaji malik maodo sëriñ babacar abdul aziz mu amee daaraja ak i rakkam ci la ñu jóge ñëw waaye tamit ñëw dabu si tuyaaba ndax lii jataayu texe la jataayu yiw la yàlla nañ ko yàlla wërsëgale hada wa billahi tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa sang bi si di Serigne Sidi Ahmed si kàddu gi tedd na euh, su ko defee kon dañuy euh, jàll rek ci li nga xam ni moom mooy topp ci programme bi euh, monsieur le ministre Félix Antoine Diome di ministre du pétrole et des énergies mu ngi ci jataay bi waaye ñëwee fi beneen tànk mooy ku ne xam na digganteem ak ki nga xam mooy jiite liggéey bi di Cheikh Abdallah Dia